ay ci kii def ba sa jëkkër arrêté euh, façon kanam. waaw ndaxte franchement tey dañuy indi waxtaan bu xamante ne dafa itte femme yu bëri ndaxte ñi bëri nañu jooy nee nañu façon femme bu nekk def nuñ ko boo di béggal seen jëkkër seen jëkkër mun leen wax sax au moins je t'aime wala di apprécier ñi gën a góorgóorlu mais gis nañu ne ku góor gi dafa noppi lool du wax dara. donc mu nekk métitu sénégalais yi bëri ñu ne tey nag il faut ñu waxtaan ci ñu waxtaan ci nag tamit ak yeeti tamit góor ñi na góor ñi xam ne jigéen dafa soxla ku koy jay dafa soxla ku koy euh, encourager pour muy gën a def bu baax yéen a yéen a wax ne daneen bëgg ku leen may jàmm yéen a wax ne daneen bëgg ku leen di bégal seen kër ah di leen di toppatoo bu baax soo leen ko bëggee nag il faut qu'à chaque fois suñu leen ko defalee nañ mun wax ko macha allah. gën ko ci encouragé su ko defee muy sawar fu mu toll leen ko yokkal mais soo leen noppee rek mel ni que c'est acquis c'est acquis allez obliga c'est obligatoire que mu def ko amoo leen pour joxe seen appréciation loolu moom du baax jigéen dafa am lu mu bindoo il faut nañ bàyyi ci xel ne def effort tey nag mun nañu wax ne yéen a ngi def effort ci benn côté mais am na beneen côté ci extérieur bi il faut nañ dolli seen effort gën a won seen soxna kontaan nañ ci effort yi muy def tey nag ma may leen ci benn TikTok bu xamante ne dafa neex parce que dañu génn ci gaamu secret de famille yi ñuy utiliser ci biir néeg dañuy jël yeneen bagage ustensile de cuisine pour rek utiliser ko teg ko ci benn son bu am solo di ko animer seen euh, seen jëkkër bëgg naa nag euh, ñu tegal ma son bi parce que soo leen dégluwulee son bi doo leen mun comprendre effet bi donc ñu boole leen son bi plus vidéo bi nañ gis les résultat que ça a donné ñu delluwaat ci waxtaan bi. leen xoolee l'objectif c'était ça c'était de vous faire rire même moom bi nekkoon ci téléphone am ba son bi jugee rek xippi na xool vidéo bi pour xam qu'est-ce qui se oh, oh, passe te paasan euh, dafa jugee troisième yeeg cinquième <laughs> gis naa moom yii daf ko intéressé donc lii dafa après bu ñëwee nag da lay laajantu lii lan la xam nga dafa am solo parce que des fois il faut ñu surprendre ndaxte fii moom kenn mënu koon imaginer dem jël say ustensile de cuisine jël sa temps scotché ko sa kaw fële fii pour laan def comédie parce que reetaan dafa am solo nit yaa ni rey seen bopp di wuti ay xeetu bagage bu nekk rek bu bëggal seen alal des fois cherchez juste le fair rire mm-hmm. soo leen ko dimbalee ba mu reetaan dana jëlee foofu benn décompression bu am solo bu xamante ne après danañ di mun introduire. après mais Mbaye wax na la ko jabaram di reetaan wax. na la nu ko jabaram di reetaan loo. <laughs> <laughs> jabar ji dafa am ñu muy dégg guddi. <laughs> waaw. parce que tamit jël sa bu baax. bu takk sa ndigg ñëw yor sa kuddu ci noor fekk fi mu toog nga naan karaj karaj karaj karaj xam nga loolu dafay nuru kokkili tamit. kii la xam nga kokkili c'est que dañu sonn jigéen ñi dañu sonn. elles ont tout fait. kii c'est le cas d'une femme boo xamante ne dafa sonn. mu ni def lu nekk pour attirer attention jëkkëram mais comme jëkkër ji daf ko miin foo ko fekk muy jël téléphone am su nekkee ci téléem du ko tax bàyyi su bëggee nelaw day gën a sàngu nelaw du jéem a xalaat ne mais sama jabar est-ce que soxluwuma léegi nag la femme pour exprimer dama mer au lieu ne bëri wax di wax ay mooy xamante ne après tu vas le regretter danay dem jouer rôle comédienne moom nay def su ko defee sa góor gis ne yow am na feneen foo mën fëlee fu nga xam ne mënu koon imaginer loolu nag moo leen di jombal ba ñu taxaw di la xoolaat d'une certaine di muñ nag muñ dul jeex nag mais dana ci kontaan am nañ nag ñuy tiital seen mais mais mais mais Kira peut-être lii euh, c'est adapté à d'autres euh, réalités mais ici au Sénégal par exemple est-ce que euh, sénégalais yi dinañ takk baaful gis na xam na nee nañu jigéen jigéen dafa war a ñàkk jom ci biir néeg nee nañu jigéen ñàkk leen jom ci biir néeg hmm. donc c'est la même chose dana war a oser tey jigéen sénégalaise dafa am benn particularité day dem dëkk ak dëkk lu mu xam ci xeet bu baax hmm. mu jël ko adapté ko ci biir ménage am rek pour bégal borom këram hmm. mais doo nu muy nu muy reetaan looyee Malcolm doo ko laaj ah? yow ni la soxna di reetaan looyee rek ah, ah soxna moom bu fi toogoon dina la wax ni may reetaan looy mais comme que yaa fi toog yow wax non na du joxe secret na fi bu bu nekk dana war a am fooy euh, amee fooy gañee sa jëkkër daal te da nga ko war a denc nag secrètement mm. loolu dafa am solo moo tax na fi du joxe secret bàyyi leen ko mais looy takk ay bool di tëggantu nag man loolu ci naa na fi dana tolloogul ci problème bi na fi bas boo tollee ci problème bi kii Ah. Sénégal des fois nga gis fi ay jigéen yu dëgër yu wow yoo xam ne. waaw yow jëkkër ji yaay mujjee nekk kulul ñoom di leen neexal ñu fas seen kanam. Oh, waaw effectivement mais quand c'est le cas les hommes. Uh-huh. ils jouent le même dañuy dem defi benn affaire bu comique si biir néeg bi mais ñoom ci néeg bi fekk def fa lu comique lu amul fenn rien que pour casser l'atmosphère mais c'est pour vraiment dire que oser. Uh-huh. oser casser l'atmosphère en allant chercher des choses xam ne kenn mënu koon imaginer xam ne mënoon nañu woon imaginer que Kira danañ indi lu mel nii. leen ko fi tegal pour nañ gis ci ay inspiration mais pour wane que il faut décompresser casser l'ambiance mm-hmm. casser l'ambiance moom dana koy jële fu ko kenn dul foog mm-hmm. foofu na amee ndam bi ay merci loolu laa leen doon may tey